Mm-hmm. bi ñu demee nag ba nga xam ne dem nañ lu yàgg biir ñoo ñaar ñoo ñi fi nekk muy ñiy jàng ak ñiy jàngale ginnaaw bi mu noppee ca mag ñële ñooñu am ci ñuy dikk ñoo xam ne dañuy ñëw ak mag mënuñoo jàng mënuñoo jàngale mm-hmm. am ci ñoo xam ne itam xaj na seeni xel ñoo nanguwul ñu ngi ci biir daara ji ci biir loolu sëriñ bi ne yéen ñi nga xam ne seeni xel nanguwul wala weesu ngeen jàng damaa bëgg ngeen dem eh, ko ci xam ne mënoo nekk ci ñaar yi di kiy jàng wala kiy jàngale nga dem liggéeyi la ngay liggéeyi rek lépp nga ñëw yorale ma ko ñaari ñii mhm. li nga leen ko yoral nag mooy daara ji ak dëkk bi mhm. kon loolu nag mooy mooy bi nga xam ne moo moo moo yaatu mhm. boobu moom ñëpp ngi ci biir daara ji ak dëkk bi ki nga xam ne day jàngale ak kiy jàng ak ki kiy jàng ak kiy jàngale ak ki nga xam ne defu defu ci lenn ci ñooyu ñaar ci yooyu ñaar kooku nag li mu ko digal moo xam kuy baana baana la moo xam kuy liggéey ku man di doon lam mu dem liggéey ñëw yorale ko jaar ñooñu mm-hmm. loolu suñ tubaa sosu yoon yi loolu mooy yoon yi ndono loolu nag lañ donn mm-hmm. war koo war war koo war koo sàmm mm-hmm. kon li ñuy waxtaane dafay mel ne bu suñ mën taxaa ne nañ sàmm ndono li eh, dongo yooyee di jàng dëkk bi daara la ci foofa eh, dañ ko def dëkk bu ab ah, dëkk commerce ak dëpp naa waaye daara la daara yooyu nag dong di ci jàng ak ñiy jàngale dañu sëñ bi dafa bëgg ñu yoral leen ko dëkkuwaay yi ak bi ak li ci aju lépp. Hmm. kon li ñuy def lépp ci biir loolu la. macha allah muy muy assainissement bi nga def li Touba ci hmm. dafa mel ni da nga ma yóbbuwaat sax directement ci hmm. question bi ma relancé waat ko ndax sëñ bi ginnaaw jàng ak liggéey la santaane woon mel na ni ñu dem Italie ñëpp lu ëpp ci lañ fay wuti mooy liggéey yi ngir mën a def li ñuy wax kas bu xalaal sàkk lu lew. tey taalibe bi ñu nee foofu ci diwaanu Italie yan taxawaay la am ci wàllu yoonu murit ci wàllu nation yi lu mel ni kuréel yi ndax ku ne xam na ne ku ne xëy dem liggéey faaw ñu am fu ñuy daje. nan la kuréel yi murid dajee foofu. nosoo ni ba war a mën a liggéey liggéey yu am solo yi ñuy liggéey te dinañ ci ñëw léegi ci kanam tuuti incha allah. waaw loolu lu am solo la ndax daali bi ñu demee daayira yi ñoo fa jiitu mhm. ni ko sëñ Cheikh Ahmadou Mbacke Gaynde Fatma sose woon mhm. ñooñu dañ cee wuyu si woon mhm. euh, di dox ci loolu ci biir euh, biir biir daayira lépp lu masaan ñëw nag dañ koy jaarale ci daayira yi bu ko defee nag daa Italie nag doon ci ñoo xam ne nii dañ cee dox jéego bu yaatoo yaatoo yaatoo yaatu euh, ndax dëkk bu nekkee rek am na daayira région bu nekkee am na ñoo xam ne ñoo fédération ñoo fédéré daayira yi dëkk bu nekk am daayira daayira yu ndaw yi am ñoo xam ne jëwriñ mhm. kër kilifa gu nekk moo xam kër sëñ Masamba wala kër sëñ eh, Murtala kër gu nekk rek mhm. am na daayira boo xam ne moo ko fa nekkal liggéey yi ñuy def yëpp nag dañ koy aj ci daayira yooyu mhm. indi noonu la ñuy doxee eh, ba tax na bépp liggéey bu fa ñëw rek dañuy bëgg mu tënku ci ci ci yooyu loolu nag euh, ba léegi si noonu la ñuy doxee ci Italie. nga xam ne su ma la déggee dafa mel ni. mbooloo bi ñu dajee. comme ni ñu doon woon ay kër fii rek. ñenn ñuy bokk wasila ne. fan daje xaw faa sakkan dañuy benn kuréel tënk ko. comme ni sëñ Cheikh nose woon liggéey bi. bi muy jóg kër yëpp nag buntu kër sëñ Tuubaa yi. kër gu ne mel na ni am na daayira foofu nga xam ne mooy Italie. Mm. léegi léegi waaw mm. mu mel ni léegi loolu kër gu ne am na daayira foofu ci Italie. Mm. bépp bu mës a ñëw dañ koy wàcc ci kaw daayira yi. Mm-hmm. ñu xool nuñ koy saytoo. Mm-hmm. liggéey ko am na genn kuréel gu jur gu ñuy wax Touba ci kanam ñëw na ci diwaanu Italie nan la def ak daayira yi foofu bi mu egsee léegi euh, Touba ci kanam bi mu ñëwee noonu nga waxee noonu la demee daayira yi dañ daan def lépp lu ñëw rek kilifa yi bu ñu koy santaane ñoom dañ koy yebal ci jëwriñi daayira yi mhm. wala bu ñëwee di jébbale daayira yi mhm. ñu jox leen ndigal loolu bu ñu demee ñoom ñu tasaare ko ci biir gox ya ñu nekk mhm. bu dee bu dee ci daayira Seexul Xadiim yi dafa am waaye daayere kër kilifa yi itam amaat mhm. boobaa na dañ koy daal di tasaare ci daayere Seex Xaadim yi nga xam ne moom ñëpp ñu ngi ci biir mhm. euh, bu dee kuréel gu mel ne Touba ci kanam nag bi mu ñëwee xaw na am tuuti jafe-jafe ndax dafa ñëwee woon déparé wàllu association mhm. euh, bi ñu ko wootee euh, ñu dégg ci tur woowu waaye bi ñu doxee tuuti nag mu mel ne sëriñ Abibu mbàkkee dafa woote ñim bokkal pas-pas bu boobaa nag nit ñi wuy si nañ ko moom baax ci waa Italie bi ñu ko wuysee nag euh, diggante ànd gi ànd ak association bi xaw naa am tuuti loo xam ne nii dana ko jeex jiix jaax ci nit ñi ndax ñi dañoo xam association ci lañ gën a mën a dox mm-hmm. ñii nag xamuñu association ñoom li ñu xam mooy xeetu daayira mm-hmm. ba tax na xawoon na ci ay waaye nag teewul yàlla dogal ñun ñi fa nekk itam ca euh, sàmm loola moo ñu fa bàyyi mooy sàmm doon dañ cay dañoo jóg nag def ci ay matuwaay yu mat sëkk ngir waxtaan ak mbooloo mi seet ñi nga xam ne dox yu nu daayira lañ xam ñu ñu indi leen ci lañ fa mën a ñu jénk leen loola mhm. ñaa nga xam ne doxinu association lañ xamit la association la laaj ndax léeg-léeg dafay am loo xam ne la ñuy jëflante tubaab yi mhm, mhm. ñu féetale leen loolu ba defee nag ñun ñi nga xam ne xaj na ñun la tiim leen ñoom ñëpp nekk suñ ñu la seen diggante ci biir loolu lañ doxee noonu nga ko waxee léegi Italie eh, ëpp na ñaar fukki région waaye dañoo xool ñun ñu tënk ko fukki gox ak benn mooy yooyu nga waxoon ku ci ñu tànn ci jëwriñ ju mat jëwriñ mu ànd ak ab secrétaire am ak ak ak wisam ñuy doxal foofu a mm-hmm. mm-hmm. mm-hmm. eh, ñoom lu ñuy wees suñu Ahmad Dieng moo ko jiite Ahmadou Dieng Ahmadou Dieng Touba Bergamo région Lombardia moom moo beneen région bi nga xam ne li ci ëpp ci versement yi ci li jóge di Emilia Romagna moo nekk deuxième bi Cheikh Mamadou Bassirou Diop moo ko jiite macha allah moom it ñu ngi koy jaajëfal baax ñu def ci liggéey am solo eh, biñ ci jógee am na beneen région boo xam ne ñu ngi koy wax ñu doon ñu jàmbaar ndax ñoom Touba Touba ci kanam daf leen fekk si ndax ñoom mhm. lii Touba ci kanam di def ñoom ñoo ko doon def mhm. ñu seet lu dëkk bi aajo woo rek ñu def ko mhm. ba yàlla dogal euh, lii juddu euh, margo bi ñoom ñoo ko liggéey ak yeneen ak yeneen am na ay hôpital bu ñu fi liggéey ak yeneen ak yeneen ñu itam ci jëriñ jëwriñu sëñ Cheikh naa Ndiaye jiite ko euh, am beneen région boo xam ne itam dañ ko tànn muy gox bu yaatu muy Liguria sëñ Assane Ndiaye nekk fa ñu def liggéey bu ama am solo Euh, ñoom itam ci wàllu googu. Mm. ambulance ak leen lu nekk ñu ngi ci daan yëngu. Mm. am beneen euh, région boo xam ne ñu ngi ko tuddee Veneto. fi mm-hmm. sëñ Ahmadou Bamba Xaadim Ñang Xaadim Ngom di nga xam ne wàllu technique scientifique lépp moo koy liggéey day ko di ko jàmbaare mooy mu jiite foofu. Mm-hmm. am beneen région boo xam ne moom la ñuy wax Piemonte sëñ euh, Gora Thiam. mi nga xam ne moo jiite social bi mooy moo jiite moo jiite moo jiite. Piemonte waaw di mhm. jàmbaar moom itam. Mhm. am beneen euh, région boo xam ne ñu ngi koy wax Lazio. nga xam ne Rome ak li ci aju muy Rome googu nga doon wax. ak li ci mhm. aju yëpp. suñ mu ku ñuy wax sëñ Matar gi yoroon ko cañ changé ko léegi moom ku ñuy wax Modou Ngiraan moo fa nekk fi mu ne mhm. ñoom it liggéey bi foofu la nga xam ne foofu la dëkkoon foofu la liggéey bi duggee ci Italie mhm. euh, am beneen région boo xam ne ngi koy wax la ñi euh, ngi koy ñu ngi ñi koy wax campagne campagne ku ñuy wax Abdoulaye Samb nekk fa mhm. moom it di jàmbaar naa ko dégg li ci aj ñi ngi koy jaajëfal bu baax am beneen région boo xam ne ñi ngi koy wax Sardaigne ci île Mhm. ñoom it eh, ku ñuy wax Modou Ndiaye naana nekk fa mhm. ñu ngi koy jëfal bu baax mhm. am beneen région boo xam ne Sicile la alaaj Ndiaye alaaj Ndiaye Sicile nekkoon fa léegi jóge fa ku ñuy wax Ahmadou Gueye wutu ko fa moom it di jàmbaar ci liggéey ba waxtu wu nekk li ñu leen di jox ci ay carte ñoom li ñuy weesu ci xaalis moo koy ëpp nga xam ne dañuy jaay ba laajaale leneen dolli ci ñoom ñu ngi leen di jaajëfal bu baax sëñ Mayib njaay féete foofu moom itam Mayibul Xadim ñëpp xam am beneen région boo xam ne moom la ñuy wax Puglia mhm. Aline Badara Sis mi nga xam ne moo nekk secrétaire général bu Touba ci kanam bu Italie mhm. mooy moo jiite foofa mhm. région yooyu bu fekkee fàttiku ma benn muy fukk ah, gox yooyu ak benn ñun noonu lañ daggee Italie nga xam ne Italie gépp mi ngi biir donte ëpp na ñaar fukki région waaye fukk gox yooyu benn lañ ko def kenn ku nekk yor ci benn di ko gérer boobaak léegi nag liggéey wax naa la sànq la at moo ba Touba ci kanam soosoo léegi. Mhm. waaw léegi ñu ngi ciy def lu kawe njort wax dëgg yàlla ñu ngi ciy sant bu baax ay coordonnateur yooyu ak seen bala ngay jàll sañ bàyyi sëñ euh, euh, Mbacke Kajoor ba léegi rek ñu ngi jaajëfal euh, téléspectateurs yi nga xam ne ñu yaan ak ñun ci biir réew meek bitim réew ci seen émission diaspora Baye sëñ Mbacke bëggoon naa xam nan ngeen def ba intégré Touba ci kanam ci biir daayira yi ndax fekk ngeen ñu nosu ba pare yor seen i kuréel Touba ci kanam ñu nekk beneen kuréel war a ñëw dem ba lu mat fukki région ak benn yëpp Touba ci kanam existé fa daayira accepté ko di ci cotiser bay am ñoo xam dañuy jaay sax lu ëpp yi ban système ngeen utilise pour war a mën a dugal Touba ci kanam ci biir daayira yi. waaw xam nga sëñ Baye daay euh, Touba ci kanam mi ngi sos woon deux mille euh, deux mille seize jëm deux mille dix sept. Mhm. wax naa la ko sànq bi ñu déparé rek euh, Touba ci kanam dafa ñëwee rek. ci ci pas pas pas mhm. pas suñu ko bi mu rek xaalis bi commencé ñëw mu xawaase ba am pëccëxoo lool. Mhm. ba tax na at moomu am nañ ci 67 millions sax ñu ngi sant ñu sant yàlla. Italie quoi waaw Italie. Mhm. am nañ ci 67 millions ci at moomu. Mhm. waaye teewul rek gis nañ ne du noonu. ci biir loolu nag ci lañ waat ne lii bu fekkente ne luy wéy la ca ñu dégg kàddu sëñ Muntaxa kàddu sëñ Muntaxa yi ca booba ñu ne nañ ko jubbanti. def ko coordination. te wutal ko ay ay jëwriñ région bu ne ñu seet ku fa nekk wut ay secrétaire wut noo xam ne danañ ko ne teg xaalis bii nga xam ne moom la ñuy dajalee itam di ko jox kenn nit rek ak ni ñu koy dox loolu ñu dindi ko. Mhm. di wut système boo xamante ni bii de lu ci dugg wut commission de finance nga xam ne lépp lu ci dugg weer wu ne danañ xam ne lii dugg na képp ko ku ci nekk itam loo ci joxe ñu xam ne lii joxe nga ko ba chaque la 5 dañuy wax ne weer wi nangam ak nangam a fi dugg. ku dugal dara ci déggoo ko nga wax ko mhm. noonu lañ ko nosee bi ñu bi gis nag ne weer wu ne nag danañ diw moom lam joxee ñu àgg na ñu rappel ko ci lañ gis ne liggéey bi ci la doo ubbi ko at moomu am nañ ci cent yu teg sept cent quarante mhm. ci mhm. boobu am nañ cent millions loolu moo noonu lañ ko noonu la ñu liggéey bi ci ci ci année 2018 mois de août 2018 ñu def ko coordination ay secrétaire wut ñoo xam ne itam Mhm. liggéey bi daal di wax nga ma liggéey bi mhm. ni ngeen fexe ba tënk coordination yi mhm. waaye damay dellusiwaat ci question bi yombul kuréel gu bees ñëw ñu accepté ko nan ngeen def ba président daayira yi nangoo jël Touba ci kanam intégré ko ci biir bay cotisé lu toll ni ñuy cotisé loolu aussi parce que lu tax ma koy laaj mooy dafa am dëkk yoo xam ne ba léegi euh, Touba ci kanam des na faa dox am na jëriñ xam ne ba léegi ñoom dégguñu message sëriñ bi ci fii Touba loolu day am solo ñu xam yéen fi ngeen jaar pour ñeneen mën ci jàngi waaw loolu moom ba tey Italie sori na ci waaye ba tey sax des na mm-hmm. ndax ni ma la ko waxee rek ni mu duggee te duggewul ci daayira yi loolu dafa desoon ne daayira ñoom dañu continuer woon ñu am ñu naan yéen waa Touba ci kanam ba léegi loolu ñu ngi koy dégg. kon su ma la déggee dafa mel ni. Touba ci kanam ci yenn dëkk yi. jaarul ci daayira bi mu ñëw mais ci ay ñenn ñi rek ñoo ko yoroon. Ah, ci dëkk mm-hmm. bi mu taxawee waa daayira yi ñoom it yi ñoom mm-hmm. ñu xam ne ñi ngi koy gis fii moo leen ci delloo si. Mm-hmm. waaye ba léegi sax daanaka mën naa ne amaguñ ko lu mat 50 nii rek waaye ba léegi des na. Hmm. ndax bu ñu ko jëloon daayira yi damay wax ne Italie li ñuy dajale ci at mi mën nañ ko am ci benn weer. macha allah kon daayira yi ñoom ba léegi des na. Hmm. li ñuy dajale ci at ñun mën nañ ko liggéey ci benn weer. Hmm. waaye nag ba léegi daayira yi ñoom euh, desandi na. ñëw nag ñu ngi liggéey bu baax am na ci côté yooyu nag moom ñëw nañ cent pour cent. waaye du yëpp. am na ci yoo xam ne ñi ngi collaborer ñoom waaye ba léegi daayira yi ni ñu ko war a jëlee nga xam ne bépp waxtaan bi ñuy def waxtaanee Touba ci kanam boole ko ca wala ñu jëkke ko wala ñu def ko ci digg ba wala toujours nga xam ne am na ku ko yor ci jataay bu nekk bu ñuy def réunion loolu moom a léegi amagul Italie des na bu baax a baax a baax a baax macha allah loolu nag a lu manque ci liggéey bi la lu ñu soxla woon moom jaajëf Baye Sëñ Mbacke Diop ba léegi rek ñu ngi ànd ak Baye Sëñ a Diop bokk ci juróom ñi nga xam ne ñooy jiite coordination bu Touba ci kanam ci diwaanu Italie muy Baye Serigne Diop Serigne Modou Diop Serigne Mayib Ndiaye Maybul Khadim Serigne Abdourahmane Diop euh, ñoom juróom yi ñoo ko jiite kenn ci tey moo toog euh, euh, sëñ dégg nga Baye Serigne li mu wax. Mhm. am na laaj yu ma ko laaj yow lan ngay laaj Baye Serigne ci diwaanu Italie ak liggéey bu am solo boobu. waa kay xam naa damay jëkk def ab euh, njàngat rek ci ni nga xam ne noonu la ubbee. Mhm. te mooy kon danañ ci dégg ni euh, day mel ni sëriñ bi daa soxla ñu am waajtaay. Mhm. waajtaay woowu nag dafa mel ni ngir nga mën a dundal. wara nga mën a gunge ndonal loolu nga xam ne ndonal Sëñ Tuubaa la mooy faaw nga am waajtaay woowu mm-hmm. waajtaay wi nag dafa mel nit ki suy tukki da koy yóbbaale mm-hmm. booy xool eh, yóbbaale googu mu koy yóbbaale mm-hmm. mooy tax bu demee lépp lu mu ca jàpp day dëgër ndax jàngoro bii nga wax nii eh, day mel ni moo dal ni mu dale Italie la dale réew mépp waaye noon noonu la dale réew yëpp ndax ba fii ma lay wax ni senegal Touba gii dëkk rek Touba gii dëkk am na daayira yoo xam ni booleegun seen bopp ci Touba ci kanam loola nag bari na lu koy def lool. ci ay ay ay ay ay xeeti gàllankoor man dama koy wax toujours ndax daayira moom xam naa ci dara. Euh, daayira léeg-léeg sampin wa dana tax dara duñ bëgg lu ca dugg. ndax bu fekkee daayire dafa am ñuñ ko masalan kuñ ko moomale. masalan kiñ ko moomale dañ jàpp ne moom dara wërta génn di dem fenn lu dul ca kooka. loola nag defe naa ne ñàkk dégg daayira la mm-hmm, mm-hmm. daayira defe naa ne bu ñu ko déggee mooy dañu war a fexe mu doon loo xamante ni dafay am administration bu dëgër mm-hmm. bépp banqaas boo xam ne war naa am ci daayira bi ñu fekk ñu fexe ba mu am ci loolu nag bu ci xësee am leneen lu mën a jóge feneen ci barab loolu da cay mën a tàbbi te du ca wàññi dara beneen bi ci des mooy comme ni ma la ko waxee euh, ñàkk dégg gi ñu ñàkk a dégg gi ñu ñàkk dégg Touba ji kanam mooy dañ koy moomale ay nit te loolu loolu boo xoolee lu Touba ci kanam dong. mën mm-hmm. naa la jox benn misaal. Mm-hmm. nga xam ne lu may dund la. Mm-hmm. mi ngi mel ni buñ nee buñ nee buñ nee kuréel yi taxawal bi si xaside yi. bépp daayira boo dem. daayira bi yëpp duñ bokk. ay nit ñoo xamante ni ñoom ñooy am pas-pasu bokk ci liggéey ba. ñooy dem ñooy dem jóge ca mbooloo mooma di ca bokk di jël seen alal di ca def mm-hmm. Touba ci kanam it ñaare boo demee ci daayira yi noonu lay demee mm-hmm. wante da ngaa indi lu am solo mm-hmm. dafay mel ni message boobu nga xam ne Cheikh Mamadou Mountakha yaa ngi ko suñu borom yàggal te wéral bi mu ko lancé day mel ni murid yi ci la ñu am dégg beneen slogan beet mooy tey ñëpp dem nañ ba xam ni Touba ca kanam xëy na bu jëkk nit ñi xamuñu ko woon waaye bi ñu demee ba gis ni ay réalisation yu am solo lañ def mooy baat bi ñuy wax ni kat dañuy laaj nit ñi lu ñu man ba pare def ko fu ñu xam baat boobu day baat boo xamante ni daa dimbali tubaa ci kanam lu bare bare mooy murit bu nekk nga porte wane ne yow yaay yaay yaay doon ambassadeur tubaa ci kanam fa nga nekk loolu loolu lool bokk na ci liggéey bi su ko defee même bu dee ci liggéey diaspora bi ak fii booy xool dañoo dañoo bokkul nu ñuy demee maanaam daayira dafa mel ne faw bu ñu bëggee mu dellu siwaat te jag faw nu andi tëggiin wa ko sëriñ Cheikh Gaynde Fatma tëggan mm. ndax loolu dana tax lu ñëw day mel ne lu ñëw rek loola dañ ko ci dañ dañ ko ci booleem masala mën naa cee joxe benn exemple mm. tey boo xoolee da daayira yi ngay wax mm-hmm. daayira bu ne am nga bis boo xamante ni mm-hmm. euh, bis boobu da nga koy def mu ay kent mm-hmm. wala nga di ko def muy am ngont wala nga ko def muy muy muy muy bis boo xam daal da ngeen koy daje. nga xam ne tey masalan léeg nga gis daayira boo xam ni yàlla dimbali na ko moom ndax loolu dafa bokk ci pexe mi nga xamante ne jëwriñ yi war nañ koy fexe. Mm-hmm, mm-hmm. mooy fexe ba tey. Mm-hmm. bu ñu nee màggalu sëñ Abdou Lahad. daayira bi ñoom am pas-pas bu toll ne bi nga xamee ne juróomi taalibe bi am na ci màggalu sëñ Abdou Lahad rek. ñu fexe. mu ñoom bu ñuy woote màgg suñu blaat ñu fexe mbooloo moomu intégré ci biir daayira bi nga xam ne léegi doonatul ni dafa am kenn ku tuddu sëñ Abdou Lahad nangam moom day day taxawal màgg suñu blaat waaye jëmmi daayira bi ñoo koy taxawal nga xam ne bu doon doonte dañuy def bu daayira jotee ñu ne na ñi ngi ñi ngi ñi ngi laajal sëñ màggal suñu bilaan masalan ñu joxe ci bu dee màggal suñu Abdou Khadir noonu loolu daayira bi bu formé woo noonu day dem ba Touba ci kanam bu dikkee dañ naan Touba ci kanam kat ñëw na ndax Touba ci kanam liggéey bi liggéey système bu yomb la ay la indi di jaay kon war nañu war nañu war nañ koo mën a defee noo xamante ni nga xam ni yemul sax Touba ci kanam dong waaye tey bu doon ndimbal loo xam ne sax dañ ne ah ñun kat dañoo war a wartu social boo xamante ni dafa jëm ci dimbali daara ñu ne social ba de ñëw na kon naka la ñuy def nga xam ne léeg-léeg di nga gis ni bu dee bu dee yenn mbooloo fi fii ni am na mbooloo yoo xam ne tey maanaam seeni bolok ci moo xam euh, póotum dongay sëñ saaliwu mm-hmm. ci laa koy jëkkee mm-hmm. ndax booy xool ci bolog loolu bokk na fi li fi jëkk mm-hmm. póotum dongay sëñ saaliwu wala ñu ne social wala ñu ne Touba ci kanam bolog ba bu ñu ko xësee joxe daayira bi mooy responsabilité bolog ba est-ce que xam nga bàyyi li ma bëgg a wax nga xam ne daayira bi moom mooy yor responsabilité bi dikk na murid yi léeg-léeg nga gis koo xamante ni ci biir daayira bi bàyyi sëriñ bàyyi sëriñ danaan diw mii kat joxe ca fukki junni mu joxe ñu ne koy joxeel juróomi junni loolu système boobu bu ñu ko doon doxalee ci daayira mooy daayira day am administration bu wóor am keno yoo xamante ne lu mën a ñëw rek day tegee ci kawam waaye bu fekkee daayira bi masalan Touba ci kanam daa ñëw ñu moomale ko sëñ mbay sëñ mbaytin sëñ mbaytin di ko woote moom dong day dem moom mbooloo mi duñ gis seen bopp ci loolu looloo lu système bu am solo la woo xam ne booy xool leg léeg di nga gis ni mën naa indi ay rëq-rëq waaye buñ ko saafara buñ ko buñ ko bokkee waxtaan rek man mm-hmm. naa mën mën naa man nit ñi buñ ci ak dégg mm-hmm. ci laaj lu ñu xam di ko def fu ñu laaj lu ñu man di ko def fu ñu xam mm-hmm. ñëpp dañuy xam ne liggéey boobu la cee bokk incha allah jërëjëf maam Thierno kaddu yi am na solo ba léegi rek ñu ngi euh, ànd ak yéen en direct ci As-Samadiyya TV mën ngeen jaar ci euh, numéro bi yen ñu ne ci biir réew meeg bitim réew dee ci biir Sénégal mën ngeen def 77 670 51 51 bu fekkee ñu nekk bitim réew tamit mën nañu jaar ci whatsapp bi 77 670 51 51 incha allah daañu leen jël en direct euh, Khadim Fall ci régie bi su ñu duggee rek nga mën ñu jox ñu mën a continuer ak ñoom ba léegi rek euh, Baye Sëñ Mbacke dañuy ñëw ak yow ci euh, taxawaay bi nga xam ne yéen a ngi koy am foofu ci Italie maa ngi ko doon wax léegi sëriñ léegi lu mel ni li ñu doon wax léegi lan nga jàpp ne d'après moo mën a ñi ñëwut ñu mën leen indi ndax loolu dafa dafa général ndax Touba ji rek wax nañ ne ANDS barki démb nee nañ seen rendement yi passé li fi nekk ëpp na ñaari ko doon joxe joxe 1000 francs kon mën a génne 2 milliards ci weer wu nekk wu ne te buñ ko génnoon ci dëkk bi lañ koy defaat kon mel na ni soññee bi ak méthode yi fépp lañ ko soxlaa muy ci dëkk bi muy ci région yi muy ci biir ci bitim réew lan nga yaakaar ne bu ñu ko defee loolu dana mën a am. loolu nag euh, sëñ Baye moom mooy jafe bu mag te euh, am na saafara waaye yombul ndax li tax mooy fi mu déparé la hmm. ndax euh, tubaa ca kanam moo xam leneen la lu mu mën di doon rek pas-pas ak Sëriñ Touba lañ gëm hmm. waa ko Sëriñ Touba yi ñoom lañ gëm hmm. association tubaa ca kanam sosono lu yàgg man mii mosuma cee bindu maa ngi ko doon dégg di ko xam waaye bi suñ abi bu wootee jëmmam ak ak pastéefam doy ma ma ñëw daanu su ci bi suñ mën taxaa ko yëkkee kàddoom am na ñoo xam ne loolu leen daaneel fu ñu soxla magasin ñu jox leen ko duñ ci soxla dara. Mm. am magasin la jox barki dem ne borom nee na fii mi ngi dund joxe na ko. Ah, ah, ak leneen ak leneen. am na benn daara bu ñu jox barki dem moom tamit borom nee na noonu la ko def yëg-yëg la. Mm. léeg-léeg ñu woote dara ñu ne joxe naa cent mm-hmm. loolu yëg-yëg lay doon. Mm-hmm. yëg-yëg nag ci lu gën a jege sëriñ bi ci lay bàyyi ko. Mm-hmm. foofu nag fi la jafe-jafe Touba ci kanam nekk. ndax bu fekkente ne jóge na ci sëriñ Abibu jóge ci Cheikh Mamadou Mountakha ñëpp ñi nga xam ne ñooy aju ci yoon kilifa yoon wi ñoo ko war a taw kilifa gu nekk am nga mbooloo. Mm-hmm. boo déggee ñu ne daayira daayira boo boo maas a gisee rek am na ku ñuy déglu. Mm-hmm. kooku nag su doon wax tey wax ci Touba ci kanam di leen digal waxtu bu ñu jébbalee mu soññ leen ci. Mm-hmm. kon danañ dana sensé. nag moom lañ manqué. ba tey kilifa yi nga xam ne ñoo yore ci kanam te nga xam ne ñoom la sosoo itam at mu njëkk ma doxoon nañ ci jéego bu yaatu. ngir woo ngir yàlla seen mbokki kilifa yi ba am ci ñu leen wuy si woon loolay dafa dafa dafa ralente bokk nañ ci li nga xamante ni bi delloo si waat loolu dana may lii ngay wax. seeti kilifa yi. waaye nag. Hmm. Euh, bu fekkente ne kilifa yi kenn ku nekk dañuy jàpp ne suñu a a jàllale ba sax dañuy wax nañ may waa Touba ci kanam ñoom ñu ñu jàllale hmm. léeg-léeg dix ñuy may hmm. waxtaanu moom duñ ci am waaye dix minutes ñuy may waaye ko ci gën a gën a bari la quinze minutes la wala sax du ko mat léeg-léeg cinq minutes dix minutes lay doon mm, mm. loolu ñun ñen ñen ñett nit ñëw taxaw ñoo ñooy Touba ci kanam mm. te da gis foo ne lu mat juróom benn téeméeri nit dana fa nekk léeg-léeg fu mat mille personnes ne fa waaye ñett nit ñoo fa nekk ci Touba ci kanam kon loolu it ba tey ñooñu teewu wuñ ko waaye loolu ña leen ko mën a tax a taw mooy ñiñ yaakaar kilifa yi seen bopp ñoom ñoo war a woote Touba ci kanam xam ne seen njariñ la ndax wax naa ko sànq ne la eh, ndona la sëriñ bi moo ko fi bàyyi woon moo ko sosaloon boppam mhm. bi mu defee ne li képp koo xam ne jàngoo jàngali woo demal liggéey nga ñëw yorali ma lii mhm. muy defar dëkk bi ak li ci aju ak seen i dund mhm. da ko tàmbaloon di ko laajal boppam ci njaareem bi mu ko laajee dox ci tuuti ñi di ko jox ci loxoom mu dox ba mu yàgg jot gi mayatu ko ko mu daaj lu gaal teg ko ci buntu kër ba ne ku ñëwati dugal ci waaye na ko def ci ñaar fukki dërëm ak juróom-ñett ku mën lu ko ëpp nag baax na ku ko mënut fa nga mën a yem nga yem waaye na doon ñaar fukki juróom-ñett ngeen di ci dëkk bi ku leen ndax ngeen mënal seen bopp bu ngeen hmm. mënal seen bopp sañal seen bopp hmm. waaye nag bu ngeen ko du defut nii may wax nii du ngeen mënal seen bopp keneen dañ leen mënal ci ku leen mënal sañal leen hmm. loolu la leen di bañal loolee mooy bi suñu saaliw del siwaate ñaar fukki dërëm loolee mu doon laaj lenn li la moo del siwaate tubaa ca kanam bii njëmbatum sëñ tubaa la day jebbi kon dafa wax ne ngir ñu ñëw yoral ko ci dëkkam bi di daaraam ji dëkk bi daara la kon léegi maanaam ñun fi sos muy defar dëkk bi ba waa nga xam ne nooy dong yi am fuñ seenum ndox ak seen lépp jàppandi mhm. loolu ndigal sëñ tubaa la loo xam ne moo ko sosoon kon mhm. képp koo xam ne da ngaa sëtu sëñ tubaa ndono la yoo xam ne yaa ko war a woote woo ci taalibe yi taalibe yi dox ci loolu nag mooy li manqué mhm. macha allah jërëjëf sëñ Mbàkke eh, Kajoor mu ne loolu mooy li manqué kon mel na ni kilifay tubaa ci kanam ñu ngi sopp bi ndax fi mu nekk nii ñu ngi ci en direct ak juróom benn fukki ak juróom yoo xam ne kenn ku nekk yaa ngi topp As-Samadiyya kon ñi fa nekk kilifa yi ñu ñuy teewlu ñu bàyyi xel ci ñaari mbir benn bi mooy liñ tàmbale woon mooy dem ci kilifa yi ñu soññee liggéey bi ndax Cheikh Mountakha dafa lu am solo daf ne Touba ci kanam ndooleen la kuréel gu ne lam yoroon doon ko liggéey na ko téye def ca lam ci daan def waaye nañ ko dolli bis bu set mu génne juróom-ñaar dërëm teg ko su weeru dee mu nekk mille cinquante francs nga jël ñaar téeméer yi fukki dërëm yi nga koy jàllale def ko ci Touba ci kanam tey ku dëkk Touba ku mën a doon nag di am yi bët di xool wala nga yor ay tànk di dox wala nga yor nopp di dégg teg nga sa bët ci lu Touba ci kanam liggéey mbaalum def loo xam ne ñëpp la la la la la taxawu mm-hmm. loolu ñun ñëpp gis nañ ko mm-hmm. moo xam ci fi rek ñu ngi ci wàllu mm-hmm. assainissement bi ñu ngi fi tollof ne nii Daaru Xudoos jógee kër sëñ Soñ bu jëm si ci bi ñu ngi fa def assainissement bu am solo bu dee buntu kër sëñ Mudu Maamun Ñang foofu ñu ngi fay liggéey liggéey bu am solo soo demee hôpitalu jéemul ak quatre ak poste de santé bi yoon boobu nawet kenn daaw fa jaar ñu ngi koy liggéey fii ci diggante euh, euh, da euh, Madiane ak garage Daaru Moussi ci booru station sel daaw benn oto sax daanu na fa. ñi ngi koy solutionné boo ñëwee fii ci corniche su euh, Guède bi corniche su. xayra euh, bi hmm. ñu ngi koy liggéey corniche su Darou Minam muy loo xam ne ba pare itam fi mu nekk nii juróomi junniy lamp la ñu indi yoo xam ne. Hmm, hmm, uniquement pour fas yéene balaa màggal dëkk bi leer. kon jàpp naa ne ku yeewoo ci dëkk bi ku mën doon rek. teg nga sa bët wala sa sa tànk wala sa nopp. ci loo xam ne njariñul ñëpp la loo xam ne kenn moomu ko. loolu nag yaakaar naa war naa jur. kenn ku nekk muy kilifa yi. équipe bu Touba ci kanam bi nañu delluwaat seeti kilifa yi wan leen fi liggéey bi toll fañ ko bàyyi woon fi ñu ko fekk déglu leen ci ñu yëkkatiwaat seen i kaddu ndax dongo yi moom ñun sëñ Tuubaa moom kenn ku ne yaa la ngay saraxe ëpp na bi jaay xëy man yaakaar naa ñàkk a ràññee la wala lu ñàkk a jot waaye mu bu nekk la muy jëf ci sëñ Tuubaa war naa ëpp juróom-ñaar dërëm kon loolu yaakaar naa lu mat a xel la maam Cerno waaw moom de ni ma koy faral di waxee rek euh, tubaa ci kanam moom dafa mel ni euh, boroom kër yi ñoo ci gën a war a wax sax. lu tax ndax li tax. Mm-hmm. mooy euh, jàpp naa ne boroom kër gu nekk ab sàmm la ci ak njabootam. Mm-hmm. te tubaa ci kanam day liggéey boo xamante ni maanaam ab système bu yàgg la maa ngi fàttaliku sëñ Mamoun Mbacke yàlla na suñu boroom gën ko fee yàggal. Mm-hmm. bu yàgg a yàgg yàgg. loolu ab loolu moom sëñ Fall loolu ab son laa ko amoon. Mm-hmm. day mel ni système boobu mu indi woon booy xool mooy Touba ci kanam. Mm-hmm. dafa waxan ni eh, jaran nañu daaj ay kees ci buntu jumaa ji. Mm-hmm. ku julli si jumaa boo boo boo boo ñëwee joxe juróomi dërëm. estimé woon na ko ba wax ñaata million la bu ñu eh, ci weer wi. loolu nag mooy Touba ci kanam. man damay wax ni kon lu nay ku ne ngi ci rawatina koo xamante ni danga ngaa yaakaar sëñ Touba. beneen bi ci desit mooy ñu war a yee nit ñi ci ni. maanaam amoom ya li ñëpp bokk hmm. bokkul ak loo xamante ni intérêt intérêt personnel la hmm. maanaam lu mel ni ay tali hmm. lu mel ni ay làmp loolu tubaa ci kanam xajalewu ko kenn ndax ko def foo xam ne ñëpp ko bokk beneen bi ci des sëñ Mbay maa ngi la koy yóbbante gis nga gox goxaan yu tu yu ndaw ndawaan yi ne ci biir dëkk bi ñooñu soxla nañ tubaa ci kanam ak présence su Touba ci kanam ndax ñu ci bare bare xëy na ñoom ñi ngi ñi ngi ñi ngi ñi ngi contribuer ñi ngi jéem a contribuer mm. waaye ba léegi kilifa yi ñu war a gis sax ñu taxaw seen kanam mm. soññ leen ngir loolu liggéey bi ma a yaatu mm. amaana loolu gisaguñ ko loolu nag damay wax ne dëkk bi xëy na ni mu toll te man naa am li ma jàpp mooy effectif bu Touba Ca mbooloo mi tollul noonu waaye lu mel noonu ni mu ni mu amee ni mu amee ci ci ci ci diaspora bi loolu la war a amee ci Touba gi nga xam léeg-léeg gox gox goxaan yi masalan mën naa joxe benn misaal tey ñu ni asalaamaaleykum waaleykum salaam mbokk mi. Ah, ah, sëñ Mbaye ñu ngi lay siyaare. ku baax kooku tuddee fa ñuy wooyee. Makhtar Sène daayira bu Touba Alessandria. ak sa Baye Makhtar ñu lay siyaar. Piemonte. ñu ngi leen di siyaare bu baax. naka waa Piemonte. ñëpp a ngi si jàmm alhamdulilah. bokki Italie yëpp. ñëpp a ngi leen siyaare bu baax di leen jaajëfal ana Baye Serigne. mi ngi lay dégg Baye Serigne. maa ngi lay dégg waaw sëñ ñu ngi lay siyaare bu baax. waaw ñu lay siyaare bu baax a baax. Hmm. ñu ngi ñu ngi jégalu bu baax nag si yéex dugg si émission bi ndax amoon jafe-jafe. macha lu bari ba xaw na cee raw waaye nag dañ ko dab dabaatal rek. Hmm. ñu ngi ñu ngi jaajëfal Baye bu baax a baax ci kàddu yi macha allah ak noonu mu ko développé. Hmm. am nañ ci mbégte bu baax. macha allah di la jaajëfal it euh, say kaddu. lay mm-hmm. déglu di la siiwar sa su ne. Mm-hmm. Euh, di la sant bu baax si Pastef bi ak yitte ji nga xam ne jox ngeen ko Touba ca kanam. def lañ ko ñaan. kon <laughs> waaw ñu ngi leen di ñaanal bu baax a baax a baax tey am mbégte bu baax nag ci émission bi yi. ndax lu am solo la. wax dëgg mm-hmm. yàlla am na solo lool Baye jë Baye moom it ñu ngi ñaan ngeen ñaanal ko bu la mooy. jëwriñ ju mat jëwriñ la macha allah. ñeent ñi jiite massification ci Italie. Baye Matar dama bëggoon xam euh, ci wàllu mm. suñ déggee Baye Serigne. fukki dëkk ak mm-hmm. benn. wala fukki région ak benn. Mm-hmm. la wax yoo xam ne. Touba ca kanam existe mm-hmm. na fa ñu ngi fay def liggéey yu am solo. léegi yi ci des. yan xalaat ngeen ci am. ngir mën a fexe ba dëkk yëpp kuréel ya fa nekk. ku ci nekk doon sa liggéey da nga koy wéel waaye ngay joxe Touba ca kanam waaw loolu moom ñu ngi ci bu baax te mel na ne fii toll ni ma koy waxee toujours rek Touba ca kanam fii ci Italie moom. Mm-hmm. Euh, fu mu fi àggut amut. Mm-hmm. fu mu àggul ci Touba ca kanam amut. Mm-hmm. suñu jëwriñ ji nga xamante ne mooy sañ bëgg fàllu day jiite massification mooy ah wax dëgg yàlla jàmbaar la lool. ak daawit noonu la doon def di dal di dal daayira yi. loolu ñu ngi ci bu baax a baax. daayira bu la fexee fexe ba maanaam jëwriñ ja. ñu jokkoo ak moom ci groupe ba nga xamante ne mooy groupe bu raison ba. Mm-hmm. waxtaan ak euh, bokki taalibe yi nga xamante moom la jiite foofu fépp. Mm-hmm. loolu it ñu ngi ci woon tàmbale woon nañ ko daaw doxoon nañ ci jéego yu yaatu yaat mm-hmm. ren jii incha allah mu ñu ngi ci noonu lañ koy bëgg a doxee daal ba feexe ba Touba ca kanam am collaboration ak direct ak président daayira yi. boo nee ci gox bu mel ne fii ñu nekk rek moom al euh, Alassane alhamdulilah rabbil alamin lañ wax ndax. man mi wax ak yow maa yor kàddu daayira bi. Hmm. keroog bi ma njëkkee dégg Touba ca kanam rek damaa daal dem Parma booba ñu ko lancement bi Parma. Parma fa demee indi ko. Hmm. waaw ba ma ko indee président daayira bi da ko daal di rafetlu daal ne moom ginnaaw yaa ko jëli nag. Hmm. te eh, eh, ma ngi say loxo. noonu la nekkee samay loxo ba léegi daayira bi kenn du manqué. waaw fii daal ci Touba Alessandria ak li ko wër moom. daayira bi moom du manqué. ñoom ñëpp ñu ci jàmm ñu def xam nañ massification nag ñu ngi ci mooy bu baax a baax di doxal su mhm. ma ko waxee barki démb si diaspora rek naa leen wax naa leen kenn ku ne daal fa nga nekk fa nga war a commencé massification ñu soog koo lawal nag ci biir gox yi mhm. euh, te loola ñu ci wax dëgg yàlla taxaw nañ ci bu baax a baax a baax a baax ñu ngi macha allah barki démb rek dem naa màggalu sëñ Omar Diop mhm. euh, euh, ci pays monte bi waaw ah wax dëgg yàlla mooy eh, yaatal nañ fa liggéey ba suñ kéemtalaay kàttan ci ñu ko baax laa loolu daal ñu ngi ci daal ak suñu jëwrin bu baax a baax macha allah jërëjëf Baye Matar am na ci yow mbégte bu baax a baax eh, di la jaajëfal di jaajëfal waa Piemonte yëpp xam naa rek incha allah ba léegi ñu ngi yi leen mbokk yi ci 77 670 51 51 mën nañ ci jaar ñu ànd ak ñoom waaw euh, koso foofu am naa benn benn laaj mhm. ndax euh, léeg-léeg dama koy faral di wax ci suñu daayira yi mhm. léeg-léeg day am tur woo xam ne mën na laa jege waaye doo ko xam massification lu muy lu muy firi ak lan la ñuy liggéey ci biir Touba ci kanam waaw massification moom mooy mooy mooy mooy fexe ba nit ñi mhm. xamal leen li ngay def xam nga massification su day ànd communication maanaam kosom yi bokkul ci Touba ci kanam ma ñëw ci yow leeral la lan mooy liggéey bi ba tàbbal la ci biir nga bokk ci biir liggéey bi doon membre Touba ci kanam massification bi dafa indi ñetti mbir ba njëkk mooy nit ki da koy leeral li ngay def mooy li sëriñ Cheikh indi woon te ñaari baat la woon ñu indi benn bi ci Touba ci kanam mu des benn bi daa waxoon ne dafa am ñeenti mbir yu méngaloo ñaari day yàq mbooloo ñaari day defal mbooloo ñu ne ko ñaari yu yàq mbooloo mu ne tegeeles mënut day yàq mbooloo ak gàntu les man nit ki waxtu boo ko tegee loola leer ne mënu ko te koo bàyyi léegi nga ñàkk ko. mooy benn ñaaral bi it mooy. Mhm. bu dee lim lay teg wóor na ko ne man nga ko ba noppi nga bañ koo def léegi nga ñàkk ko. Mhm. ca la indi nag nag ñaar yi nag ñooy defar mbooloo. Mhm. laaj nit ñi lu ñu man bu ñu noppi ñu def fu ñu xam. bala ngay mën a laaj nit ki dara. da nga koy wax li ngay def mooy lan ba mu xam ko. su ko xamee ba noppi nangu kee dugg nag dugg ko googu nag mooy

77 670 51 51 ngeen mën a tàbbi seen émission diaspora tey ñoo ngi fi nga xam ne mooy Italie ñu ngi ziar baax a baax suñu mbokk nekk Côte d'Ivoire ñoom di waajal bis bu ama am solo muy bisu xasida yi jàpp naa ne suba lay war doon incha allah dañ ci ñëwaat léegi am sàngir foofu tamit ñu ziar bu baax a baax bàyyi ma gumba caam mi nga xam ne moo fa nekkal Cheikh Mahmadul Muntaxa waaye ziar waa Baomé waa Yamoussoukro waa Boaké waa Marcory waa Grand Bassam waa Koumassi ñoom ñëpp ñu ngi leen di siyaar euh, Baye Serigne dañuy dellusiwaat rek jotaay bi ba léegi rek taxawaay bi ak liggéey bi euh, nan ngeen jàpp ne ñu ko defee li bëgg dinañ ko mën a am. Euh, sëñ Baye maa ngi lay siyaaraat bu baax loolu ma waxoon ci kilifa yi rek ci laay dellusiwaat ñoom ñoo war a mën a yaatal liggéey bi. moom muy massifié massifié liggéey bi yaatal ko baatu kilifa yi ñoom ñëpp ñoom la ñuy déglu suñu waxee xooluñu la ñuy wax baax na wala baaxul lu man doon fu ñu wootee ñu wuy ci leen mhm. kon ñoom nañ gën a dem ci ñoom ñu woote liggéey bi ci waaye nag communication dafay lu am solo ci liggéey mhm. te communication bi it bu dee ci wàllu national bi dafa mhm. des ndax li daal des na mooy Euh, war nañ ci bàyyi xel bu baax a baax a baax diaspora bi mhm. war nañ bàyyi xel bu baax xam ne itam communication mooy yor lépp mhm. ndax jataay bi war nay am lu bari mhm. te mën naa ne Touba ca kanam yàgg naa ci ca pays bi ma yor it muy Italie ñoo ñoo maa ngi jaajëfal bu baax ñi nga xam ne ñoom laa seqal muy ñooñu nga limoon sànq ma toog fi seen tur fàttiwuma nag soxna Ndey Kebe ñoom ñi nga xam ne ñooy ñooy waa fédération soxna Jaara bi di ay jàmbaar ñoom it maa ngi leen di fàttaliku bu baax a baax ndax fu liggéey bi egg rek mën naa ne ñoom ñoom ñoo ñoo ko fa eggale ñooñu ñëpp bi Touba ca kanam sosoo léegi ñu ngi toll ci 809 dajale dañ ko. Italie Italie kese. benn milliard bu manqué tuuti. waaw benn milliard bu manqué tuuti ca diaspora bi lépp ñu ngi dajale 2 milliards 62 yi. génne Italie 809 millions 713 mille 803 francs. moo génne Italie. moo génne Italie salaamaaleykum. ngi bu baax Baye Serigne ñu jël mbokk mi. Euh, borom euh, borom UK. deuxième vice président commission relations extérieures ñu ngi lay ziar. Ah, ñu ngi leen di ziare bu baax a baax sëñ Mbaye. how is the evening. yes it's fine fine. Ah, <laughs> maa ngi ziare Baye Serigne Mbacke Diop. yes it's very fine. ok go ahead. and you and you too. Oh, ah, maa ngi leen di nuyu bu baax mm. tey bëgg nag ci émission bi. Mm-hmm. rawatina nag bi ko samay jëwrin rek seqee muy Serigne Alhaji Mbaye Tane mi nga xam ne moom mooy jëmmi Touba ca kanam. waaye nag tey ànd koog jëwriñ ju mag di bàyyi Serigne Mbacke Diop. ku hmm. xam Touba ca kanam ci diaspora bi xam nga kan mooy bàyyi Serigne Mbacke Diop. Hmm. di ziare sëñ Koso moo muy toog ci plateau bi te waxtaanam bi am solo lool. Hmm. surtout li muy leeral ci Touba ca kanam ak kilifa yi nga xam ne jotoon nañoo am ay yéene ak i neser ak i mébét ci liggéeyal Serigne Touba te mel ni Touba ca kanam dafa ñëw tontu ci loolu. Touba Ca Kanam dafa ñëw bëgg-bëgg taalibe yépp mu dajale ko kër yépp it mu dajale leen muy lu am solo mhm. ba tax na daal maa ngi wax ne ngir bañ leen a jël ci lu bari ndax li ngeen di wax am na solo lool waaye dama leen di nuyu ak di seere suñu mbégte ci taxawaay bi ngeen am waaye di ñaanal nag sëriñ Serigne Mountakha moom Cheikh Mamadou Bassirou mu yàgg fi lool mbàkk ci ànd ak wér. waaw bisimilah. foofu ci Angleterre moom it euh, liggéey bi nan la fa demee moom Touba ci kanam. waaw waaw sëñ mbay Touba ci kanam fii ci Angleterre euh, dinaa ci sañ a wax waaye sax nag damay ñemee wax ci Europe ndax xam nga liggéey bi moom dafa yaatu fii te ñu nekk ci di ci nam na bi waaye dañuy wax ne euh, fii am na ay dëkk yu fasantikoo hmm. waaye dëkk boo dem sëñ mbay am na jëwriñ ju fa nekkal Touba ci kanam hmm. ndax fii am na dëkk bu ñuy wax Londres hmm. am na dëkk bu ñuy wax Birmingham. Mm-hmm. am na dëkk bu ñuy wax Oxford. Mm-hmm. am na dëkk bu ñuy wax Leeds. Mm-hmm. am na Manchester. am na Bristol. waaye dëkk boo dem ci yii ma la wax ak yeneen yuma ma limut da nga fa fekk jëwrin boo xam ne weer wu dee wu nekk day nekk ca dëkk ba ak ca daayira ya di dajale li Touba ci kanam di wax laaj lu ñu man di def ku ñu xam. macha seen jëwrin di Serigne Fallou Diop. nga xam ne mooy suñu jëwriñ ñun ñëpp fii ci Angleterre waaye mm. sëñ Mbaye ñu ngi ci def lépp lu ñu man mm. waaye nag Baye Sëñ Mbàkke Jóob moomu nga xam ne moom moo jóge Italie mm-hmm. te Italie damay faral di wax ne bu dee Touba ca kanam mm-hmm. day jëmm ci bitim réew wala mu doonoon ak saxaar dama naan bopp saxaar gi mooy Italie mm-hmm. ndax man mii Italie laa nekkoon maag Baye Sëriñ Mbàkke moomu ak ñeneen ak ñeneen ñoo nekkoon di ci góorgóorlu ci liggéey bi ba mu agsi fa mu agsi waaye bi leen ko bàyyi ñoom dañ ko yóbbu fu gën a kawe di ko ziyaare moo coordination bi yëpp. Mm-hmm. di wax ne loolu muy leeral daal mooy tey bu doon ak saxaar la dama naan ci bitim réew moom Italie mooy bopp bi. macha ndax lépp li nga xam ne da koy def ci ay versement wax dëgg fa yàlla euh, bu ñu xoolee rek xam ne maanaam bu ñu dajale woon diaspora bi yëpp yëpp yëpp li ñuy verse ci at mu nekk. Mm-hmm. ñi xaaj ko juróomi xaaj. ñeenti xaaj yëpp ñoom ñoo koy versé. Mhm. loolu sëñ mbay du lu tuuti. dëgg la kon dañ leen di jaajëfal ak di leen waw góoral waaye di jéem a roy ci ñoom nag bu baax a baax. waaye nag di sant nag diaspora bépp sëñ mbay. Baye Serigne euh, bala ñu lay bàyyi gis nañu ne commission relation extérieure euh, kilifa yi ñoo ko jiite woon mhm. ku mel ni sëñ Abo Bousso sëñ Cheikhouna Lo ak sëriñ Modou Seck yàlla dogal deux mille mhm. vingt quatre bi jàpp deux mille vingt sept euh, mu set muy trois ans yi nii. Xaadim euh, Thian moom moo jiitu euh, sëñ ma Ndir bu États-Unis topp ci yow Baye Serigne Gueye Angleterre nga topp ci yéen tey bi ngeen ñëwee ci liggéey bi euh, yan yan naal ngeen am ci li ñu leen dénk ngeen war ko doxee sut nag ci at mi ñu nekk muy atum 2024 bi lan ngeen waajal ci ci ci ci ci diaspora bi. waa kay suñ may ñu ngi lay ziar bu baax di jaajëfalit suñu jawriñ yooyu nga tudd muy suñu Xaadim Thian ñu jiite relation extérieure ak suñu ma Ndir. te ñun ñu ànd ko ñoom di wax ne naal yi mi ngi tàmbalee deux mille vingt quatre deux mille vingt cinq ba deux mille vingt six muy ñetti at doon naal yoo xam ne weesuwul rek buñ ko tënkoon dañ naan laaj lu ñu man di def fu ñu xam. macha allah waaye yàlla dogal comme li nga wax dafa am jàmbaar yoo xam ne bu ñu jaaree ci dara ba di ci yëngu ba nit ñi xam leen ci suñu xëyee ñëw ne la lii kat yow mii lañ bëgg nga euh, féete foofu war ngaa ci Mm-hmm. ndax ko kilifa gu toll ni Serigne Abou Bousso. Mm-hmm. Serigne naa loo ak sëriñ Modou Seck lu ñu yore. Mm-hmm. suñu la ko yëkkatee jox la ko yow war ngaa takkaat bu baax baax sa laxsaay ndax jëlale naa ne ñoom ay kilifa lañ ñun ay ndongo lañ waaye xarala gi ñu am ak xam-xam bi ak posteur bi day tax yow boo fa nekkee rek da ngay tiit ba tax na ñooñu it dañoo fexe ba ñun ñu boolewaat leen ci suñu biir. Euh, tas leen ci sunu bopp du ñu def dara te yëgoowuñ ci ak ñoom. macha waaye yow sëñ Mbaye yow mi kenn nga ci ñooñu nga xam ne conseil spécial nga ci liggéey bi li ñu naal nag mooy dañoo bëgg incha allah balaa ñetti at yee jàll di jeex mboolem diaspora bi foo xamee ne liggéey bi yaatuwu fa woon ñu yaatal ko fa foo xam ne yaatu woon na fa ñu gën koo yaatal ba mu gën a yaatu ci taxawaay boobu boo xoolee Baye Sëñ ci Jóob mii tey jataayam bu am solo bii muy def mook sëñ koso ak yow moomu dafa mel ni lenn la ci sunuy naal muy fexe ba Touba ci kanam ñu koy dégg fépp ci àdduna bi ku ne xam na ne télé As-Samadiyya maa ngi ñaanal sëriñ Abdou Samad yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér lii muy def ci liggéey bi liggéey yàlla la liggéeyal sëñ Touba la ndax wane liggéeyu Serigne bi taalibi sëñ Touba yi xemmem ko ba tàbbal ci senaw ñàkk loolu jëf ju rëy Hmm. kon sëñ Abdou Samad lii tamit ñu ngi ko ciy delloo njukkal Touba ci kanam képp ñu ngi koy sant di ko gërëm waaye ñun waa diaspora bi na xam ne ñu ngi koy sant guddi di ko sant bëccëg ndax lépp lii mu ciy def ñun la ko defal hmm. kon sëñ Bay daal ngir bañ a tënk téye jataay bi hmm. e, li duuf ci xay nag wi xajul ci cin lii ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen encouragé di leen wax ne jërë ngeen jëf wa salaamaaleykum wa rahmatulah wa aleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu kooku di Baye Serigne Gueye doon wote foofu ci Angleterre di deuxième vice président commission relations extérieures xam naa yéen tam incha allah seen invitation dina ñëw ndax il faut ñu toog ak yéen xool bi lan ngeen programmé Baye Serigne bëggoon naa xam wax nga léegi ne Italie def na lu mat huit cent et quelques millions at mu nekk ak léegi at mu nekk ñaar la def ba léegi rek mën ngeen woote ci 77 670 51 51 ci biir réew mi ak bitim réew yëpp bu nga duggee incha allah daañu ànd ak sëñ Xaadim Faaf foofu ci régie bi. waaw jërëjëf sëñ Mbaye loolu comme li ma doon wax rek ne communication dafay lu am solo. Mhm. te comme dañoo liggéey bi dañoo soxla lu ko gàttandu. Mhm. Euh, kilifa yi laa wax waaye communication maanaam mi ñi nga xam ne ñoo ngànk Touba ci kanam bàyyi waat xel liggéey bi. Mhm. ndax wax naa la ne Italie loolu moo nga xam ne dajale na ko bari na. te ñaareelu euh, réew yi ëpp puissance ci àdduna bi bu Sénégal jàllee mooy Italie. kon war nañoo ànd liggéey bi. Mhm. Eh, li ñu fi indi ci ay lalu hôpital toll na ci ñeenti téeméer ak ñaar fukk. macha allah te amul kenn ku la ko mën a leeral. Mhm. kon dafay mel ne ni ñu ko war a bindee mu am siiwi nga xam ne waxtu bu nekk danañ ne nangam am na fi ñu di ko bind bu ñu fi indee lu man juróom-ñaari ambulance ñu ne loolu la lool bokk na ci li liggéey bi. Mhm. wane ko ñëpp gis ko di ko waxtaanee. loolu moom lépp lu ñu fi ne fii moom. waa waa administration lañ koy su egsee itam ba nga xam ne ñëw nañ ñu jël ko. dañ ko war a def ay kii nit ñu wone ko ba xam ne lépp lii lu am la loole dana sawarloo nit ñi mhm. ñu xam ne lii kat lu am solo la mhm. ak yeneen mhm. lu demee noonu kon réew yu mel noonu nañ leen nañuy waxtaan ak ñoom ñu yokk lu mel noonu euh, dalal yu mel nii dafa war a am ndax dafa waroon na ay jamono ñu xam ñu lu ñu soxlaa xam ci Italie di ko laaj max naa leen lii tey la ma sa am inshallah am naa ñetti weer ci dëkk bi kenn mësuma woo ci benn ndaje kenn mësuma laaj dara kon dafay mel ne ki collaboration des na. loolu dañ na tey incha allah nañ yokk collaboration. incha allah dina di waxtaan. <laughs> laajante li xew. bu ko defee mm. loolu day yokk liggéey bi. Mm. loolu laa gis ma ne Italie bi mu sosoo léegi su euh, année bu njëkk bi di 2016 nga xam ne moom laa wax ne 2000. 17. 67 millions 859 mille moom lañ fa mille. ñu am 139 mm. mm-hmm. na yoo xam ne day teg ay weccet. année bi nga xam ne mooy année deux mille euh, deux mille vingt. Mm-hmm. boobu ñu euh, année deux mille vingt. waaw Italie am moom la amoon cent trente neuf millions ba année boobu dañ ci wootoon benn jaayante bu am solo. Mm-hmm. Italie jaayante na ci soixante soixante treize millions six cent cinquante trois mille. Mm-hmm.

dañu am 93 millions. 2023 mhm. bi ba tey euh, benn jaayante amoon na ci. Italie am na ci 52 millions. 52 millions plus 93 euh, millions yëpp ci même année bi waaw euh, même bi. ok 2024 bi nag ñu ngi toll ci 20 millions 638 mille fi may wax ak yow. 2024 ci sixième mois bi ñu toll nii. sixième mois bi. Ah, ñu ngi ci 20 millions 638 mhm. bii nga xam ne mooy daw nii bis ñu ngi Euh, huit cent quatre vingt sept mille neuf cent trente cinq francs. Mhm. foofu lañ toll nii. lépp boole moo la jox huit cent neuf millions mu nekk huit cent lay toll bu dee diaspora bi yëpp it année bu nekk mën nañ la ko waaye foofu la ñu toll. macha allah waaye daal ñu bàyyi xel euh, xam ne liggéey bi euh, ñun nag dañuy analyser ndax xamaguñ ko gis nañu mi ngi wàcc am na ñoo xam ne dañoo wax ne ci. Eh, dafa am ñoo xam ne joxeetuñ mu jaar ci reçu yi ñu koy comptable mais dañuy def ci application bi waaw waaw am ñoo xam ne xaj na dañuy plateforme yi ak compte bancaire yi yooyu waaye loolu ñu ngi koy analyser waaye daal ñu a gàttanduwaat liggéey bi daal mat naa def moom macha allah collaboration macha allah jërëjëf euh, bàyyi sëñ Mbacke Diop ku mel ni sëñ Mamour Mbacke bi sëñ Mour Boussa Dieng mhm. l'actuel président kon ñu bàyyi ci xel sëñ Blaat moom sëñ Jili mhm. euh, président commission de finances moom it ñu bàyyi xel ci lu mel noonu ngir ñu saytu natt xayma lan moo waral lu mel noonu waaye itam comme mel na ni. boobu ba sëñ Bay moom lañ gën a gën a yittewoo ndax sëñ tàkko daana ñëw wër Italie soññi taalibe yi. Mhm. daanaka mën nañ ñetti at gisatuñ ko. ci wàllu massification bi ci wàllu massification. Saint Blada bi daana ñëw waaye mel na nag xa digganteem ak Touba Ca Kanam xaw ma nu mu demee waaye war nañ ko waajal loo xam ne bu ñëwee loolu da koy tax a jóg mu yaata liggéey bu baax a baax loolu moom dañ ko soxla woo waaye fi mu ne nii waaw loolu bàyyi sëriñ mel na ni yaakaar naa ci plateau bi am na koo xam ne mel na ni matt googu ci mattam la hmm. dinañ ci bàyyi xel incha ñi ngi waajal délégation spéciale boo xam ne hmm. kilifa yooyu muy ci ñeenti continent yi hmm. Afrique am na ñu ñuy am na ñu ñu ñuy ba ci Asie sax am na ñu ñuy waajal ñoo xam ne incha allah entre 2024 2025 2026 bi ba 2027 am nañu boo xam ne bu soob yàlla dinañ jéem a xool ci 197 pays amagum nañ 65 pays ñu xool réew yu doxut ñu doxal leen yi am jafe-jafe ñu xam lan la ñu jëm ko solutionné mhm. waaye tam ñu jéem a yokk liggéey bi mhm. loolu ñu ngi ciy liggéey liggéey boo xam ne yaakaar ñaar ñetti weer incha allah dina feeñ koso <coughs> am na solo euh, Baye noonu mu ko waxee rek sëñ Baye <coughs> day mel ni euh, bu ñu fexee ba nit ñi xam ko rek te mooy ni mu ko waxee fexe ba message yi jàll mhm. ndax jàpp naa fekkee liggéey la boo xamante ni masalan euh, tey asamadiya taxawaay bii mu ci am. Hmm. média bu nekk xam ni taxawaay bi ci asamadiya am moom nga ci war a am. borom asamadiya it. Hmm. taxawaay bi mu ci am. Hmm. jaayante na cent tonnes ciment. joxe émission boo xam ne gratuitement pour Touba ci kanam. loolu it yaakaar naa ne ñi man dara ci yoon wi yëpp bu kenn ku ne loolu dina am solo. beneen bi ci des mooy waxtu wu nekk du jóg ci di xalaat lu koy doxal. dëgg la loolu nag moomale gi ñu ko moomalee Sëñ Touba jàpp ne lii alali Sëñ la. looloo tax kenn ku nekk man koo am kon jot na nit ñi eh, ni ko bàyyi bàyyi bàyyi bàyyi kii wax bàyyi sëriñ waxee nit ñi ñu ñu ñu yee leen ci tubaa ci kanam mhm. jàpp naa ne buñ ci yeewoo dootul jar campagne mhm. ndax dañuy xam ne lii alali sëñ Touba la mu ngi mel ni ma la ko waxee léegi xam nga ki ci am gis-gis day jàpp ni eh, boo bokkul ci tubaa ci kanam rek mën naa am lamp yi du jaar ci sa wet mhm. wala boo bokkul ci tubaa ci kanam mën na am fa nga nekk du ko defar fekk demewul noonu moom ñëpp bokk ndax mel ni tey ay hôpital ñaata hôpital la fi liggéey fukki fukki poste de santé. waaw beneen bi ci des it mooy. Euh, Baye wax na lu am solo te loolu sëñ Mbaye jàpp naa ni loolu moom mooy seen liggéey. Mhm. mooy am na loo xam ne communication moo koy moo koy wane. Mhm. daan naa ko daan naa ko loolu daan naa ko gis lu am solo la sëñ euh, euh, sëñ kii suñu bàyyi Baye Baye kii moomu doon di yor. nekk ci communication Touba ci kanam. Cheikh Amar. Cheikh Amar. Baye Cheikh. waaw daf daan def lu am solo. masalan buñ dee buñ dee laajte ay social xam nga socialu tabaski ren. Mhm. dëgg la jàll na mais. comme xeeti xeeti annonce yooyu nga xam ne da ko daan def nga xam ne tubaa ci kanam maanaam indi ko wane ko gaaral ko nga xam ne tey masalan tey ñun Touba ci kanam fexe nañ ba am hectare yu yaatu mm-hmm. yoo xam ne dañ faa fas def ay tool mm-hmm. loolu kii ki masalan waxuma la sax ki ci def alalam mm-hmm. waaye ki nga xam ne daa bëgg a liggéeyal Sëñ Touba mën naa liggéeyal suma na loolu am na ñi ngi am neuf hectares fii ci yoonu Darou gis na gis naa ko naa ko nga xam ne nga xam ne liggéey liggéeyu mel noonu bi ko wane ak di wane comme ni nga ko waxee xam ni que Touba ci kanam am na ñoo xam ni bitim réew lañ nekk waaye jaayante nañ fa fexe indi fi nangam loolu wane gi nga koy wane maanaam day tax day soññ ki ko joxe waaye ki nga xam ne moo nekkan ci sawet te joxewul it dina ne ah ñii kët kon li ñuy joxe am na njariñ ndax kon àgg na ca dëkk ba mën naa am moom mu joxewul woon far ab goxam maanaam mbeddum këram wala miiru këram taqaloog miir boo xam ne tubaa ci kanam moo ko defar muy ab hôpital mm-hmm. mu cay faju soxnaam di ca faju ay waajurum di ca faju ay doomam di ca faju mm-hmm. kon dafay mel nit ñi buñ leen leeralee njariñul Touba ci kanam leeral leen ni Touba ci kanam du moomeelug sëñ Abibu mm-hmm. maanaam moomeelug sëñ Touba la goo xam ne sëñ Abibu la yàlla tawfiixale mu jiite ko na ca liggéey ba waaye li ko li ko ci war moo ci war ñëpp jàpp naa ne ñëpp dañ ci jël seen i seen seen matuwaay koso pour firndee loolu rek barki démb maa ngi invité fii euh, Euh, waa commission éclairage public bu mairie bu Touba. Mm-hmm. ñu bokkoon jotaay ak président euh, sous commission bu leeral bu Touba ci kanam. Mm-hmm. mais ci biir émission bi. Mm-hmm. ki fi représenté woon mairie bi. la waa yoonu ñurul yóbbante ne ko. daara yi sëñ Abib ñu ne fii ñun ñi fa dëkkee. dafa lëndëm ba jéggi dayoo. bi mu daanalee kàddoom président commission bi xam lu mu ko wax. daf ko ne waxal sëñ Abibu. na jënd ci làmp yi installé ko fi te xaar bu Touba ci kanam ñëw. ndax bi mu wootee ci pas-pasu liggéeyal Serigne Touba. programme bi ñu jël teg ko. boobu ci rek rek ci la dox. Mhm. kon bu fekkoon ne dañoo jàpp moo ko moom wala su ko moomoon. Mhm. mbaa mu am ci sañ-sañ boo xam ne sañ na ni dafa leen ma lii. Mhm, kon loolu du am. te moom day wax ne ñaari bu ñëwee fi ñuy defee réunion fekkee réunion ci salle bi su génnee. day yëkkati 1000 francs wala 2000 ne nañ ko def ci courant bi. parce li ko doon upp. ñàkku taalib yi la doon jëwriñ ji soññee hmm. waaye liggéeyu Serigne Touba la ñëpp bokk leneen nit toog xëy xëy këram ñu indi fa ndox moo xam ne yëgul kañ lañ ko waajal hmm, hmm, indil ko fa ay lamp yu mu kañ lañ ko waajal wàcce fa suuf defar mbedd yi kon nañu xam ne liggéey la boo xam ne ñëpp ko bokk ñëpp ko bokk ah. mais leneen nag li ñu cëroon ci waxtu dafa yaakaar naa six minutes moo ci des dañu ñëw ci euh, Baye Sëñ Mbàkke euh, lan ngay tënkee nag ci ñaari minutes waaw xam a comme noonu ma ko waxee rek gën a bàyyi sant nag ñi nga xamante ni bii dañoo jiite waa relation extérieure ñoom ñu ñu présenté leen fi ak ñi nga xam ne waaye Europe ndax coordination Europe juróom-ñeenti nit la. Mhm. ñu bokk ca kon ñoom bu ñu toogee fii ñoom ñu ngi toog ci seen tur. ñan ak ñan ñoo ne foofu. Euh, léegi juróom-ñeenti nit ñi moom xam naa ne buñ kee dinaa la ko. ku ko jiite ku ko jiite ko ndax six mille daal si daa bëriwul. ku ko jiite ku ko jiite mi ngi bàyyi ak ñun ñi ñëpp juróom-ñeent lañ ñun ñoo dañ ko def coordination ñëpp nekk ci. macha allah waaw léegi sëñ Abbas Dieye ñoom ak ñoo ñëpp léegi ñoom ma euh, ñu jël mbokk moom mbokk bi salaamaaleykum allo. mbokk moomu dëkk ci na bisimilah léegi léegi sant ñi nga xam ne dañoo ne ci dëkk bi di sonn ndax dem maa ngi seeta image yi ñu ne ci canal yi di ko dindi yooyu yëpp gàttandu assainissement la ndax assenisement baat bi dafa rëy maanaam def ko mu doon loo xam ne nii li li mu soxla woon lépp waaye fi ñu da koy tàmbalee ji dindi kanaal yi dindi ay kii nii wut ay tiwo kenn ku nekk fa nga nekk nga def foofu lañ mm. koy tàmbalee bu ko defee mm. léegi ba ba àgg fu ñu war a baax nag daanaka wax ci ndoxum Touba mm. dama xam moom mat na fi nekk nii ne moom lañ ci maa ngi del si ab beneen yoon insha allah waaw mu ngoog waaw mu ngoog noonu kon loolu moom ñu bàyyi ci xel bu baax tax tàmbalee ko ci barab yi nga xam ne mooy mooy mooy mooy mooy mooy kii eh, ñi eh, ndox mi ami gardien am ñoo xam ne dañ koy yor nekk fa. Hmm. réhabilité wut ay ay ñi nga xam ne. Eh, ñoom ñu koy saytu. Eh, waaleykum salaam mbokk mi mooy liggéey bi. allo. allo salaamaaleykum. waaleykum salaam. Serigne Alioune Dia. waaw sëñ Mbaye Tène maa ngi lay membre suivi évaluation ñu ngi lay ziar. Hmm, delloo naa la ziar bi. Serigne Aliou jotaayu tey bi ci mi ne mel waxtu wi xaw naa xooj ban jàngat nga ñu indil ci jotaay bi eh, waaw ginnaaw bi ma leen nuyoo sëñ Mbaye nuyoo sunu jëwriñ Baye Serigne Diop hmm. nuyu sunu mbokk taalibe bu mu ngeen toogal bokk ak boobu jotaay bi di rafetlu bu baax hmm. macha allah initiative bi di sant bu baax sëñ Abdou Samad mi nga xam ne ci moom la jaar di ko hmm. ñaanal yàlla ñaan yi ñu ko ñaanal yëpp yàlla defal ko ko. Eh, ndax dëgg yàlla ni nga ko waxee léegi sa mujjee rek kàddu bu ñëpp defoon ni moom xar kanamu Touba ci kanam dina gën a jël dina gën a yàqaliku dina gën a yaat. Mhm. kon lii moom ab soññe la boo xam ne njaboot sëriñ yëpp sëriñ nga xam ne am nañ possibilité bu mel ni fu mu am. Mhm. ñëpp war nañoo takkatoo àndandoo def ñi muy def ndax ci kanam moom wax dëgg yàlla. ndolol Serigne Touba comme ni ñu ko Serigne Modou Mountakha waxe mhm. kon képp koo xam ne danga aju ci Serigne bi te taw bi nga nekk ci yëg nga ne benn ko defal te loo njukkal kon Serigne bi à travers Touba ci kanam dañ ko war a def mhm. euh, kon ngi ndokkeel bu baax si samat euh, bu dee jëmm waxtaan bi nag ginnaaw bi ñu jaajëfalee bu baax bay Serigne Diop lii mbokk yi mhm. wax ci moom doy na sëñ ñëwaat muy koo xam ne ab taxawaay moom ñëpp a ko ràññeetlu ñëpp a ko xam muy ko xereñ nag muy ko xereñ yaakaar naa plateau bi tey li ngeen dugg dégg foofu mu jukki ko ci tolluwaayu bitaan ci at yi passé loolu firndeel la ko dama koy wax toujours ne ko jànkikat yi tubaab yi ak jànkikat yi yeneen yëpp yaa ñu gën a xereñ yaa ñu gën parce que ni muy diagnostiqué liggéey bi ak ni mu koy ak ni mu koy càmbaree mm-hmm. techniquement wax dëgg yàlla loolu suñu borom defal na ko ci tawfeex bu baax baax kon ñu ngi koy ñaanal yàlla mu gën ko kattanal amiin léegi nag li nga xam ne mën nañ ko cee jàngate mooy euh, ab bunt la bu ubbeeku hmm. boo xam ne buñ ko gënee développé euh, lu bari ci li nga xam ne moom la Touba ci kanam am ci objectif am euh, mën nañ cee jaaral di ko waddal hmm. su ko defee loolu dana gën a motiver mbokk tari bi yëpp mën a nekk ci àdduna bi ñu gën a am ubbeeku ci Touba ci kanam ak fi nga xam ne foofu la jëm ak nu mu fa war a kon euh, wax dëgg yàlla li ngeen ci li ngeen fi andi ci ay ci ay jàngat li ngeen fi andi ci ay soññe li ngeen ay leeral euh, euh, nañ ko gën a améliorer mm-hmm. gën koo structurer waaye gën koo organiser rek su ko defee jàpp naa ne lépp day nekk njëriñ loo xam ne liggéey bi mooy fii daal di jëriñoowaat mm-hmm. sëñ bay yow wax dëgg yàlla euh, am na ñoom jotaay ci biir koor gi yaakaar naa kër sëñ ma Ndiaye. nga mm, mm. euh, nekk koo man bi ma la dégloo nga wax dama ne ku mel nii ndax ci wàllum développement ci euh, Touba ci kanam ni nga xamee nekk noonu la war a war a war a war war a war a boppam ci biir Touba ba nga xam ne secteur yëpp dana leen mën organiser. Euh, fexe ba nos leen xëcc leen ñu tàbbi ci biir liggéey bi ba ñoom ñëpp ñu gën a gis seen bopp ci biir liggéey bi. Mm-hmm. loolu da nga ci am ay idées yu pertinent. yaakaar naa discuté mm-hmm. nañ ci lu yàgg a yàgg a yàgg. Mm-hmm. te à euh, yi mel nii rek ci lañ mën a fexe ba yooyu ñu mën di ko génne su ko defee ñi nga xamee ne que ñoom ñoo yore liggéey bi sur le plan administratif ñu mën di jël note. ci xalaat yooyu di ko dajale su ko defee loolu mën ñoo yóbbu ci. Euh, li nga xam ne dafa nekk ci sunu kanam ni ñu war a taawoo liggéey bi ak war a gën a puuse pour que mu gën a dox jëm ci kanam incha allah kon daal xam ko bàyyi sëriñ koy waxee li xaj di eh, nu mu tuddati ci nag yëpp xajul ci cin li. dëgg maa ngi maa ngi am mbégte wax ñi nga xam ne ñoo tëj woon di tëgg Aliou incha allah rabbi <laughs> eh, yéen itam seen invitation nañu parce que lii dañ koy tàmbali bi mooy cinquième eh, bi mooy deuxième numéro mais am na yeneen plateau yoo xam ne ah. aussi ñu ngi koy waajal pour que liggéey bi rek yoon wi dëkk bi ak njàngaleem sëriñ bi ñu gën koo jëmmal waaye gën koo taxawu am ngeen ci ay xalaat surtout nag yéen ñi nga xam da ngeen yëngu ci wàllu suivi jataay yu mel nii dañuy soxla seen i xalaat ndax d'après bu ñu defee waxtaan ba noppi laaj nañu natt ko càmbar ko xayma ko yooyu aussi day doon yu am solo yoo xam ne ay orientation mun na ci génne yoo xam ne vraiment mën na jëriñ liggéey bi yow tam vraiment ngay ku am xalaat doon ko am gis-gis ñu doon bind yi nga xam ne moom moo ne foofu ci Italie ci liggéey bi coordination bi vraiment muy ku am xalaat ah, Aliou kon dañ lay jaajëfal baax xam naa tey waxtu bi moo ñu xaw a xat waaw moom rëcc na xam naa Aliou xaadim xam naa kon kooku mooy nekk suñu dernier euh, kuy wootee mbokk mi salaamaaleykum allo Aïcha kooku rek kenn bàyyi sëriñ xam naa kon mën ngaa mën ngaa tënk rek ndax mel leen waxtu wi waaw kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp rek hmm. euh, Alioune Dia moom ñu ngi koy jaajëfal bu baax bokk na ci ñi nga xam ne bi ñu xalaatee liggéey bi mat naa tëgg aw doxalin càmbaraat ko ñi lëlu woon di tëgg aw doxalin moom moom ci la bokk incha allah koy jaajëfal baax ma ko laaj sëriñ jongo ak xaadim sëriñ xaadim bam ñoom ñi nga xam ne coordination bi ñoom ñoo ko tëggoon incha allah kon ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax hmm. boobu ñun yëguñu ko ñu ñu ñu teg ñu ci liggéey bi kon ñu ngi leen di sant bu baax a baax ñu ngi am mbégte bu baax ci hmm. liggéey bi di leen sant di la sant yow sa taxawaay ci liggéey bi ñëpp seera nañ ko hmm. di ñaan suñu borom nangul ñu waaye daal eh, sëñ bi dafa wax ne bu mu laal suuf macha allah am na maa moom ay jataay yu bari suma indi sax koo xam ne dafa am xam-xam ci ndox mi ak i xalaat mu ne ma ndax ci Touba ci kanam la bokk mhm. ma ne ko ah bokk na ci waaye nag lii muy dox moom ajuwu ci mu ne ma kon doy na macha allah macha allah kon nag nañ xam moom war nañ ah, loo mën di wax rek dana Touba ci kanam rek moom la ci mhm. xalaat macha allah kon nag war nañ fexe ba bu laal suuf tarkalla mm, jërëjëf Baye Sëñ Mbacke Diop euh, mu fàttali leen rek ne moom mii euh, mooy ki nekkal sëriñ bi mm. ci wàllu biiram biir këram mm. njaboot si amoon mu taxaa gi nekk foofu ci Italie moom mooy seen euh, jëriñ Euh, sëñ Koso lan ngay tëjee. tabarkalla sant bu baax rek di xamal bokk yëpp ni rawatina ñi nga xam ñoo nekk ci diaspora bi ni émission bi seen émission la boo xam ni da leen a ñeel ngir ñu mën a ànd ak ñoom waxtaan rawatina yi jëm ci wàllu seen wàllu daayira ak yi nga xam ne moo koy doxal ak yi nga xamante ni yëpp rek ay gis-gis la yu am solo yoo xam ni ñoom nag ba ñu demee yóbbu waajtaayu am solo woowu bàyyi sëriñ wax nag dañ ko war a dundal foofa waaye dañ caa war a gàttandoo ñi nga xam ne ñooy seen njaboot kon ñu ngi leen di xaar ci émission bi salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. jërëjëf euh, mbokk yi ñu doon seetaan euh, bi ñu commencé émission bi léegi xaw nañu xabaabal ndax teg na juróom benn simili ci benn waxtu bi nga xam moom lañu amoon waaye mu mel ni rek euh, noonu la jotaay mu di faral doxi léeg-léeg kon noo ngi jaajëfal baax a baax waa réewum Italie di coordination ba Baye Serigne Diop euh, sëñ Modou Diouf euh, sëñ Mbaye Ndiaye Moybul Khadim sëñ Modou Diouf ak soxna Mbène Kébé ak sëñ Abdourahmane Diop ñu ngi leen di jaajëfal jaajëfal baax a baax suñu mbokk yi nekk Côte d'Ivoire foofu ci bi ñuy waajal suba moom it ñu ngi ko fas yéene ànd ak ñoom jaajëfal baax a baax sëñ Bara Fall sëñ Alioune ak ñu àndal ci diwaanu foofu nga xam ne mooy commencé nga xam ne fa la ñuy amale li nga xam ne moom mooy lii di bis bu am solo boobu mbokk yi kon fii lañ leen di di daje incha allah yeneen réew yi beneen samedi ci beneen réew ci yeneen jëwriñ ci yeneen liggéey Seexul Xadim ki nekkoon ci kàddu gi muy seen mbokku talibé mbayteen ci wàllu kàddu gi ci régime ñu ànd ak Serigne Xadim ci caméra yi àndoon nañu ak ñoom ci wàllu technique bi ñu ànd ak Cheikh Bassir Amar wasalaamualeykum wa rahmatullah